actualité ci la ñuy ñëw daal di ci dugg nii dañuy commencer tout d'abord def li nga xamante ni laataa ñuy dugg ci waxtaan bi chaque jour moom la ñuy jëkkee daal di jukki li nga xamante ni moo gën a fës ci suñu ay euh, journaux dañu koy euh, tey jii sax d'ailleurs ñu daal di choisir lii di Walf Quotidien Dakar Times euh, l'Observateur ak lii di l'Évidence dañu koy dooree ak euh, lii di Walf Quotidien ñoom tey ñu fësal ci seen une euh, li nga xamante ne mooy dossier euh, Karim Karim Wade ak ki nga xam ne mooy Khalifa Sall ñoom nag li ñu daal di xam ne mooy le prochain combat de l'opposition lan la nara doon ñoom waa ko Walf Quotidien waa Walf Quotidien loolu la ñu xamle Euh, voilà tey loolu la ñu xam ne ñoom waa Walf Quotidien dossier Karim et Khalifa le prochain combat de l'opposition leneen itam loo xamante ni Walf Quotidien fësal nañ ko muy radio télévision sénégalaise RTS le SYNPICS sort les cafards de Racine Talla mu mel ni waa SYNPICS nag dañoo daal di sulli mbootu kii di xamante ni ki nga xam ne mooy Racine tala alors euh, aliso ci loolu la ñuy la ñuy la ñuy dooree dossier euh, Karim Wade ak Khalifa Sall. ñu tegee ko de côté léegi li ñuy laaj mooy euh, prochain combat de l'opposition lan la lan la nar a doon. mais euh, euh est-ce que prochain combat. Mhm. am na. Mhm. parce que finalement. Mhm. Euh, euh, bon évidemment c'est une je ne sais pas si c'est une question. wala c'est une affirmation de la part de. Walf Quotidien mais j'aurais comme l'impression que. c'est une affirmation mais je pense que ni amatul dossier Karim. ak Khalifa puisque n'importe comment li ci desoon. ñaari étape la woon mhm. première étape bi c'était euh, de euh, les sortir de prison et puis euh, d'abord pour Khalifa Sall et puis ensuite essayer de faire revenir Karim Wade donc du Qatar mhm. vers le Sénégal mhm. après li ci des le prochain combat benn kese la te je pense que c'est résolu sinon doo gis Abdoulaye Wade ak Macky Sall. Mm. nu ñu entente cordiale bi ñu am. Mm. dafa am lu ko suuxa ci suuf. loo xam ne moom moom moo leeragul. Mm-hmm. mais je pense que je pense que prochain euh, combat bi mooy euh, ñu daal ñoom ñaari ñaari euh, cas yi Khalifa Sall ak ki di Karim Wade ñu delloo leen seen ay droits civiques c'est vrai que génn nañ mais ils n'ont pas encore retrouvé looy xeex. Mm-hmm. c'est parce que da ngaa njort ni. Mm-hmm. amagoo ko wala yoruloo ko. foofu laay waxee en réalité mooy yor nañ ko forcément puisque dinañ leen remettre dans les dans c'est d'une évidence euh, bu ñu leen génnee c'est pas pour les faire traîner comme ça euh, comme des euh, vulgaires touristes au Sénégal c'est pour que ñu mën a continuer seen activité donc politique seen activité politique pour ñu mën ko continuer nag il faut qu'ils se retrouvent dans leurs droits mm. pour que ñu mën a retrouver wu dans leurs droits forcément benn solution kese moom moo des moom mooy loi d'amnistie bi nga des correctifs au niveau ñoom ñu ñoom Karim Wade ak Khalifa pour ñu mën a euh, euh, participer à une élection à une quelconque élection euh, donc dans ce pays euh, parce que homme politique naturellement pour mu mën a exister c'est pour que il faut muy participer aux joutes électorales sinon ça ne sert à rien parce que du mouvement du machin c'est pour s'arracher le moo tax ngay def politique donc forcément il faut mais il faut nga nekk dans des conditions dans dans dans dans des comment dire il faut nga nekk ci euh, sur le plan enfin dans des conditions civiques euh, pour nga mën euh, assumer li ma wax léegi nii. pour mu mun ko def nag. il faut ñu dem xooli article L31 boobu. Mm-hmm. te je pense que ni loolu Wade war na ci déggoo ak justement président Macky mm-hmm. parce que waxu nga wax gi dafa am ne dafa nekk ci kaw lu lu feeñ li nit ñi di ci seen bët. Mm-hmm. xam ne mi ngi ci suuf li ci suuf nag mooy li ñu déggoo. parce que xam nga Wade Macky a promis au président Wade solution qui permettrait justement parce que Wade a précisé à, à, euh, à comment dire à, à ci bisu mala Massalikul Jinaan bisu inauguration inauguration bi Wade dafa wax ni dafa wax euh, Macky Sall bàyyil euh, donc euh, Karim comment dire bàyyil Khalifa Sall mu dem yoonam au-delà justement des discussions qui ont eu en interne en aparté ci biir appartement boobu nekk biir Massalikul Jinaan bu weesoo loolu Wade insisté na sur le fait que Macky Sall devrait lâcher immédiatement dans les plus brefs délais donc Khalifa Sall finalement gis ngeen loolu moo am mm. tout de suite xaar ñu sax week-end bi jeex c'est le samedi soir que Macky Sall a signé le décret pour que le dimanche ñu mën nañ ko exécuté wax gi jeex vendredi samedi dimanche kon loolu gaaw mhm. waaye xam nga ni génnewuñu leen noonu rek pour sànni leen ci àll bi mhm. il faut que ñoom ñu retrouver recouvrer mhm. seen euh, droit civique droit yooyu nag c'est sûr que amnistie rek la mën a jaar mais moo tax ma doon wax démb fii ni il faut une amnistie te lool sax mooy am je pense euh, mooy il faut une amnistie générale amnistie générale boobu il faut mu doon amnistie fourre-tout xam ne ñëppay nekk ci biir mu doon Karim Wade comme dans le même style rek que loi Ezzan bi amoon euh, bi ñu ñi nga xam ne ñoom la ñu soupçonné woon en tout cas yoon waxoon ni ñoom ñoom ñoo ko faat mm-hmm. dañ leen boole ci biir boole si ñi nga xam ne ñoom ñoo agressé woon Talla Sylla <laughs> waa kër Abdoulaye Wade yi nga xam ne ñoom ñoo agressé woon Talla Sylla pour mën leen mettre dans leur droit da nga leen di boole ci loi d'amnistie boobu nga xam ne dañ naan bis sàngam ba bis sàngam ci fukki at wala fukki at ak juróom képp ku fi def lii ak lii ak lii ak lii bokk nga ci loi d'amnistie boobu donc tout le monde va se sentir concerné en tout cas surtout les euh, les les les les plus importantes personnalités telles que Karim Wade ak ak ak Khalifa Sall mm-hmm. ndax ñu mën a recouvrer ñoom seen liberté mm-hmm. seen liberté civique bu leen di permettre ñu mën a assumer seen i activité politique donc c'est tout à fait normal et logique je crois que ça va continuer comme ça donc question bi mm-hmm. li euh, euh, affirmation bi bi bi bi waa Walf Quotidien def mm-hmm. bon ben c'est euh, ça aurait pu être une question mm-hmm. à mon sens parce que c'est d'une évidence que ni combat amatu fi ndax combat comme ni ma la ko waxee looy xeex mooy li nga xam ne daf la woon ni jotoo ko wala ngay njort ni jotuloo ko mais lii dootul xeex parce que ce n'est plus un combat puisque c'est un acquis à mon sens ndax loolu bokk na si li tax Abdoulaye Wade ak Macky Sall juboo parce que il est évident que pour les Sénégalais qui ne le savent pas mm-hmm. Macky Sall a euh, véritablement besoin de Abdoulaye Wade mm-hmm. c'est vrai mais que est-ce euh, par rapport ak ñoom li ñu wax mm-hmm. euh, ci kii bi ci bi euh, parce que foofu la kii moom est-ce que titraay bi tamit du leen. kii Alioune Sow. Euh, waaw Alioune Sow euh, dégg nga euh, est-ce que parce que comme ni ko ki waxee am na ay droits yoo xam ne. ba léegi jotaguñ ko. xam nga loolu kii droits yooyu jotaguñ ko. te pour comme yow ni nga waxee. lii lii mooy tax ñoom ñu mun a maanaam nekkaat ci langue politique bi. loolu rek moo mun a tax. dafa naa ne titraay bi ça parle bon sama xalaat la. xool ko waaye titraay bi loolu laa xalaat que ñoom ñu jëlaat. ñu retrouver parce que euh, am na fu Karim euh, Wade euh, waxee Karim Wade nee na moom amnistie ou moom wax na ko am na am na ci yi mooy mooy tout juste bi ñu bàyyee kii nee na amnistie ou rien mhm. ce qui veut dire loolu moom mooy combat bi nga xam ne ñoom dañ ko war a mëne te man de man de di que ñoom pour ñu mëne ko il faut que parce que gis nga nañu bàyyi Sénégal benn affaire mhm. Awa Condé moo am benn problème mhm. te moom mu ngi ci euh, opposition bi Awa konde la ñuy bàyyi mu dem xeexi man je pense que ñoom ñëpp dañu war a parce que lii mun na dal keneen est-ce gis nga mën na dal keneen surtout ma affaire euh, kii boobu euh, tax ba ñu tëj xaw ma Khalifa sax am yooyu yëpp c'est un combat mm-hmm. combat la boo xam ne pour xeex pour loolu ba wokki euh, man après euh, foofu nga analyser man fi may analyser mooy pratiquement boo xoolee Khalifa Sall ak kii xam moom mooy Karim Wade euh, kii libéral la kii PS la donc kon boo xoolee Barthélemy si si discours am mi ngi naan est-ce que du ay deal pour parce que parce que Wade waxoon na ni sur quarante ans voire cinquante ans dafa bëgg régime libéral libéral kii mm-hmm. est-ce que moom ñoom ñoom tam commencé nañ comprendre que ni enfin Barthélemy si mooy que ni Eh, kon euh, banque que euh, Wade kon am na lu ñu wax donc et que Karim peut-être la ñu bëgg voilà te ñoom tam duñ ko nangu parce que ñoom tamit vraiment dañu bëgg accès donc muy en tout cas pour man ñoom ñaar euh, muy Khalifa Sall eh, avenir bi ñu am si politique bu ñu bien vrai bu administre bi ñooy duggee bien sûr te yaakaar nañ dina dugg donc kon ñoom sax dinañ fan fan la Idi di mujjee fan la Sonko di mujjee fan la keneen parce que voilà donc jeu boobu man pour man ñoom ñaar loolu la foofu laa gën a gisee quoi. Mhm. c'est vrai que instant bi moom échiquier politique bi ci boppam lépp lépp jaxasoo ak ak ak génnu ki nga xamante ne mooy Khalifa Sall. amoon na sujet bi loolu yëpp quoi sujet moom mooy combat la wala du combat. man nee naa leen du combat du combat parce que mënul nekk combat parce que ci loolu la ñu accenté wu maintenant après les enjeux c'est carrément autre chose mhm. pour éviter d'aller en dérision mhm. donc je crois que lii wax moom combat la du combat combat bi mooy lenn la est-ce que euh, lii combat la wala du man je pense que mhm. du combat parce que loolu leer na bu yàgg il va y avoir une loi d'amnistie c'est d'une évidence parce que loolu mooy war a mën ses activités politiques donc ñoom ñëpp bu ñu ñëwee euh, te loolu wóor na ma ni waxta Ablaye waxtaan na ci euh, waxtaan na ci ak Macky Sall comme waxtaan euh, loolu leer na maintenant question d'opportunité la kañ koy def ban date la ak ban période la est-ce que c'est dans un an est-ce que c'est dans six mois est-ce que c'est dans trois mois loolu je bi nga xam ne mooy ndey mi li ji quand parce que moom moo moom moo moom moo lii yëpp mm-hmm. ndax Sénégal yëpp moom la ñu doon xaar mm-hmm. Sénégal yëpp dañu doon xaar Abdoulaye Wade ak Macky Sall la ñu mm-hmm. donc dès l'instant que boobu am na la suite logique juboo bi ak surtout li ko mën a waral li war a mën a tax juboo boobu am forcément xam ngeen ni euh, affaire u euh, euh, Khalifa saal am na ci solo mooy sa liberté de de d'assumer ses activités politiques et pour la même chose pour Karim Wade aussi donc foofu laa ne combat amatul xam nga combat mooy li ngay xeex te nga yaakaar ne euh, euh, kuy dem làmba ja xam nga ni daan ba pare xam nga ni daan nga jaratul ngay dem làmba ja foofu munoo ne combat amati na fa parce que daan nga ba pare donc booy dem di dayeeg sa adversaire euh, c'est parce que wóorul na bi ngay dem di préparer wu ba ba ngay bëreeg sa adversaire wóorul wóorul wóoragula ngay daan mhm. mais fii lii du combat mhm. loolu combat la mais fii lii du combat puisque de toute façon daan am na ba pare parce que sa adversaire mhm. kii na euh, euh, comment dire ku demi ku ku ku kii porté kii comme li waa waa waa kii def waa Sénégal def keroog ca Égypte loolu ni ñu koy waxatee ci olof waa Sénégal équipe nationale bu Sénégal. non pas équipe nationale mooy équipe génération bi li ñu def quoi. ok euh, kii forfait. waaw def forfait ah. euh, xam nga forfait nañu ba pare. Ah. kii forfait moo am quoi. Ah. xam nga loolu kon yow wóor na ci forfait am na kon gañe nga jarul combat amatu fi. Mhm. puisque victoire am na ba pare en fait foofu xamul la xam ngeen fi may waxee wala déet xam nañ bu baax surtout y' a pas de combat euh, puisque y' a plus de combat en tout cas dossier dossier mm-hmm. Karim Wade ak ak Macky ak Khalifa Sall mm-hmm. amatul dossier boobu dootul combat mm-hmm. dossier bi benn élément important la woon bu am solo ci biir moom mooy amnistie bi parce que ñoom ñu mën a retrouver seen liberté civique bu leen di permettre ñu mën a continuer di assumer seen activité politique te pour loolu forcément et obligatoirement mm. même a la limite logiquement loolu Ablaye Wade du ko mësoon a nangu du mësoon a déggoo Karim euh, Macky ci loolu mm. tant que tant que loolu leeral ko ba pare te mm. je pense que ni leer na quoi et puis il y a des signes pas ah sorti de Massalikul Jinaan ànd ak euh, Abdoulaye Wade ci oto bi mm-hmm. ñu dem mu déposer këram promettre qu'on mm-hmm. dina ko gisaat dans les prochains mm-hmm. jours c'est pour euh, réguler tout ça ba pare sëriñ bi aussi am na lu ci wax sëriñ bi neew leen yaayu réew mi yow yaay euh, doomu réew mi. Mhm. donc je crois que c'est assez clair. Mhm. si ñi donc du combat en réalité quoi ah man je pense que ils auraient mettre les négociations vont bon train. d'accord ci Walf Quotidien ci la des euh, Aliou Sow ñoom ci li nga xamante mooy seen titraay euh, radio télévision sénégalaise le SYNPICS sort les cafards de Racine Talla ñoom waa SYNPICS dañoo joxoñ baaraam kii di Racine Racine Talla parce que fële RTS nee li terrorisme social la fa nekkee mooy buum di di buum ko neex daal moo fay am te ñoom waa Synpics. <laughs> loolu daal la ñuy mais lu gën a waar sax Synpics euh, je ne sais pas ndax préciser nañ ko ci biir. parce que mhm. je n'ai pas eu temps de le lire. Mhm. mais c'est d'une évidence que ni même kii buum di buumi sax foofu dootul dootul place am parce que retraité na bu yàgg te waroon na mhm. dem dem dem ñu jël RTS jox beneen euh, nit mu jiite ko comme directeur général. il se que euh, au-delà de Racine Talla ci boppam warul toogati RTS parce dafa war a dem maintenant après est-ce que Macky Sall ko defal une euh, un contrat spécial pour mu continuer di gérer euh, jusqu'à ultérieurement par rapport à lui ses stratégies lui le président Macky Sall pour le contrôle de la RTS parce que moom la ci je ne sais pas mais en tout cas il est clair que ni euh, Racine Talla mi waratul toog RTS retraité na bu yàgg dafa war a dem Mhm. ba pare il est mal en point euh, <laughs> médicalement parlant. ok d'accord mais mais bu ñu waxee Racine Talla aussi euh, euh, Aliou Sow du du du moom rek instant bi mooy def li nga xamante mooy terrorisme social ci ci ci presse bi patron de presse euh, yu bëri instant bi nii teguñu teguñu teguñu waaw <laughs> waaw yaa yaa tudd teguñu ci. ci yoon dañuy terroriser seen ay employés lu leen neex la seen i ay journalistes di bind lu leen neexul duñ ko bind ñu ngi ñu ngi ànd ak état donc lu arrangé changer état rek lañ la ñuy euh, du moment où ñu ngi wax ci Racine préféré aussi ñu wax ci ñeneen ñi nga xamante ne moo tax moo tax moo préciser xam yaa ngi wax RTS mm-hmm. donc boo waxee ñeneen ñi il faut ñu préciser aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo problème mm-hmm. boo demee RDV ay ñaata weer a nga une dizaine de mois kenn fayu leen seeni salaire mm-hmm. boo demee direct info quand même euh, euh, est le quotidien de de moo ko moom direct info yaa fait dix mois fayuñu fayuñu seeni je trouve que c'est hyper injuste surtout que ce n'est pas la faute à Cheikh Amar mhm. donc moom war na ci jóg aussi parce que mbir mi bu dee moom moo ko moom na ci war a jóg parce que ay doomu jàmbur ñi ngi foofu aussi toog jàpp seen jàmbur di mhm. liggéey normalement je crois que c'est un c'est un c'est un très bon quotidien qui qui qui travaille et puis pensez à ces ces, ces salariés journalistes qui se mais vraiment qui qui se prennent la tête pour que journal journal bi yéeg ci benn niveau ngeen toog ay fukki weer doo leen je trouve que c'est hyper injuste parce que je pense à ces gens-là qui sont des chefs de famille qui sont des mères de famille koo xam ne responsabilité bopp en toute dignité kenn toog ngeen toog fukki weer fay loo leen. muy yow RDV yéen groupe RDV bi Escaf et cetera muy yow direct info je pense que faudrait que seen directeur général bi jóg ci loolu jéem a fexe def kamtalaay kàttanam ba résoudre le problème là parce ko problème boobu yàgg na fa trop un coup c'est ceci un coup c'est cela un coup c'est ils ont des difficultés un coup kenn fayu leen un coup problème de je sais pas quoi euh, en tout cas de management au niveau des ressources humaines je crois qu'il y a un problème mais yooyu yëpp sax am boo fekkee ni sax mi ngi dox ba pare ngeen leen di fay seen i seen i salaire ces journalistes là qui travaillent et ces employés fukki weer fayoo ko nit man xamu kooku nan lay dundee donc je pense que ni à ce niveau là Cheikh Amar il faut nga góorgóorlu ci euh, def quand même parce que quand même mënoo di seetaan nii parce que mbir mi sa yëf la yaa ko moom ou alors il euh, y a un autre problème boo xam ne il est caché derrière il faut nga leeral ko nit ñi xam ndax ñële aussi euh, ay borom kër lañu ak ay mère de famille il faudrait que ñu ñu ñu dund quoi ñu ñu leen di fay seen i salaire ah mooy yoon parce que patron de presse dañuy nekk fi di lekk xaalis bi di teg seen i deal ba pare bàyyi seen employé ci suuf mm-hmm. loolu man d'accord d'accord ñuy loolu instant bi bëri du direct xam nga euh, li mu fu mu daanele laay kii mm-hmm. ñuy ñoom ñoom ñuy defar seen affaire mm-hmm. ñuy régler seen business dégg nga bàyyi nag ay nit yoo xam ne dañoo bàyyi ay njaboot ay ñëpp yaakaar ci ñoom dégg nga mm-hmm. kon nag nit ki da nga ko war a au moins dégg nga ne serait-ce kii ko mm-hmm. dégg nga mm-hmm. euh, dafa am lenn loo xam ne dafa. mais mais Coach dëgg ma mais dix mois na nga mën a toog direct info. dix mois fayoo ay salariés. doo dégg dama la ah mais mais xanaa mais ñoom lan la ah, passé. xam nga aussi. kaay dama la eh Aliou Sow dama lay wax benn affaire nag. gis nga buñ doon def léegi. bu ñu doon def euh, xaw ma lan ni ñu koy sax euh, état des lieux. Mm. ña ñoo fay ña ñoo fay. Mm. ñu ne ku kii euh, kii journaux yu bëri dinañ tëj. dëggantaan télé yu bëri dinañ tëj. rajo yu bëri dinañ tëj mais dañu war a tëj dañu war a def. li waaw waaw waaw non uyu ma man maa la wax loolu. maa la wax loolu ñu bëri nañ kii mm. waaye nag au delà de tout ça Aliou Sow dama ànd ak yow ci lépp man nag lenn lay wax tam man am loo xam ne man daf ma jaaxal man xaw ma kooku sa kooku sama avis la man xam lan laa gëm. Euh, dix mois sans salaire. non c'est abusé quoi. xam nga c'est man man man man xaw ma lan la ah. quoi. man munu man munu ma imaginer loolu. mën na nekk aussi. non non non attends non attends dama ne dix mois sans salaire. Uh-huh. am na dégg nga waaw xam nga gi nga nit ki comme que xool amul xool. amul xool. yow tam wan ko ne dama tam aw ma xool ci yow. Uh-huh. Euh, euh, ku nekk ay bañkat c'est-à-dire dix mois sans salaire man damay wax ne c'est prévisible lu tax. tey ñoom li ñuy reproché euh, politiciens yi ni parti politique dañu bare noonu la organe de presse yi tamit bare te mhm. amul ta mais bu baree mais doole bi du du am doo mën a jaay c'est-à-dire nga bëgg a jël benn pléthore également nga tëj voilà moom laa la moo nga tëj loolu laa wax nga tëj mais loolu kan moo koy réguler est-ce que est-ce que am loolu tamit mi ngi noonu quand quand ña ñoo war a constater ña ñoo war a tëj ña ñoo war a voilà donc dal seen kaw parce que am ñoo xam tamit boo leen bàyyee noonu du ñu mës a tëj c'est vrai ah c'est trop parce que tey man li ma si jaaxam mooy problème yi si mënta am ñoom duñ ko exposer seen ay employé dañuy toog di leen seetaan mm-hmm. alors que loolu baaxul lekk ak c'est pas du tout bon communiquer ak ñoom lay doon et je mm-hmm. pense que li nga xamante ni sax mooy tribunal du travail war na war na war na taxaw ci loolu parce que ñoom aussi am nañ ci part de responsabilité. mais mais pourtant dis-moi dis-moi kii bi directeur info tëjul mi ngi continué que parce ñoo xam ne ñu ngi liggéey mais ñooñu en fait. leneen la ñuy jël sareet la ñuy jël waa l'observateur fësal fësal nañ ko muy sécurité de la première dame Marième fay Sall électron libre instant bi ni sécurité am ay défaillance yu bëri lañ lañ ci nemmeeku day dem fenn ful bi ñëw wër ko du am du am fu mu jaar bon man lenn. ci ci ci titre bi loolu foofu laa bëggoon ñoom malgré urgence yi am yi am ci dëkk bi yëpp est-ce que lii nii. Euh, Euh, est-ce que mënuñu woon wax leneen plutôt. mais mooy li ma leen expliqué rek xam nga non xam nga xam nga tey dina la laajaat lii ñaata lay jaar. <laughs> titre bi waaw titre bi ñaata lay jaar sa euh, euh, ñaata la. Mm. ña ñaata lañ ko jëndee. Mm. yaa ngi dégg. Mm. c'est ça la vérité c'est que lii nii. moo dul yoon. am na yu bari yoo xam ne war nañ ko fi wax. pour le affaire du cancer bi nii nii nii. un gros man man j'aurais mis <laughs> ndeysaan c'est dommage quoi dans ce pays quoi. Mm-hmm. j'aurais mis une grosse titraille mm-hmm. sur le cancer. Mm-hmm. témoignage ñi nga xam ne jigéen ñi xam ne ñoom ñuy souffrir ci cancer de l'utérus dem def dem def def ay investigation ci sage yi xam ne ñoom ñooy def test yi xool gars yi wax ci wax ci Sénégal yi xam ba pare aviser leen wax leen nan la ñu war a mën a def yenn lekk yi nu ñu ko mën a expliquer euh, euh, pour yenn façon lekk yi pour éviter le cancer du sein ak yu demee noonu jigéen ñi nan lañu ñu war a nàmpalee seen doom yi et cetera woo ay médecin def témoignage sur le cancer de l'utérus mmh. c'est tueur mmh. silencieux silencieux yooyu la ñu waroon def comme titre mais on nous parle de Marième Faye Sall Marième Faye mu def baax na ñun dañu ne pour rey ko pour lan lan la ñu xalaat dañ ko war a rey wala dañ ko war a agressé mais mais euh, vous savez ah même Macky Sall il n'est pas en totale sécurité dem na ba ci yoonu ngeeñañ ba oto ba tàkk mu génn taxawaalu taxaw ci ci diggu tali bi noonu ci jooti oto bi foofu na am na ñoo xam ne mënu nañu ko fa fekk mhm. fekkal ko il suffit juste de ay mètres rek nga nga mu daanu donc sécurité yàlla moom moo ko yor fii ñun suñu Sénégal bokkuñu comme les pays occidentaux nga xam ne da ngay taxaw fële à deux non c'est pas pareil ce n'est pas combat et puis ndaw si nañ ko parce que euh, lii la xam nañ ko bàyyi mu dugg ci nit doomu Sénégal la balaa jëkkëram di nekk président elle a été toujours comme ça on a qu'à la laisser euh, mu s'amuser et puis et puis saafonteeg nit quoi loolu du lii titre aussi mais bon c'est dommage quoi xam nga Marème ko mënti wax moom dafa simple. dafa simple te dafay yàgg di dugg ci foule bi. amul je vais te dire une chose. am na loo xam ne nit da koy wax al dëgg. ci euh, kii euh, jabaru euh, chef d'état yi ñoom ñëpp à part de Senghor de kii. kii mooy jabar mooy première dame. bi ci population bi gën a. waaw jaxasoo ak askan sentir. ma kii dañ day cuuraay. waaw Marème Faye day bëgg Marème Faye day suul. voilà non c'est vrai non lii woon titre L'Obs lu toll ni quotidien comme L'Obs waroon def titre bi waroon na wax ci autre chose mm. wala mu def wala mu wax ci sax ci en détail mais def ko titre comme ça man dama ne lii am na lu muy jar te Sénégal dañu war a xam ne titre bi euh, am na retour euh, de de de de xaw ma lan retour de euh, d' investissement par rapport à à ça et ça je trouve que c' est quand bien même j'ai beaucoup d' pour cette dame là naa la wax leneen coach dégg naa ndaw si ndaw si lu mu wax def ko dégg naa contrairement à jëkkëram waaw. dégg naa moom lu ma wax rek ci ah, àdduna da ngay def ah si maa ko dégg man ah. ci lu wóor laa la wax na wax ko mu wax jëkkër mu fay ma sama xaalis kon <laughs> kon kon kon wax ko waxal yow sa jëkkër sa jëkkër dafa ameel coach deux cent cinquante mille francs ah, ak ak intérêt yeeg yooyu dafa ko fay non sa jëkkër dafa ameel coach deux cent cinquante mille francs deux cent soixante quinze mille francs la ko ameel euh, ak intérêt yeeg yooyu la ko fay xaalis ah bu ko non si non si xaalis bu ñu koy intérêt donc la ko fay mais en tout cas ku baax la et puis safonte nii et puis mooy mooy mooy femme cuuraay femme femme bin bin femme femme femme femme femme femme lan la jël jëli non jël jëli yéen tudd. waaw jël jëli voilà femme yooyu noonu femme femme cuuraay cuuraay yooyu femme gowee femme machin nañ ko bàyyi mu mu dugg ci ci biir ci biir les saint-louisienne. voilà loolu la euh, léegi léegi kon léegi kon nañ nañ dem ci nañ dem kon nañ dem kon ci leneen ah ci leneen ñu wax ci beneen titre Dakar Times ñoom li ñu fësal tey ci seen une muy euh, un accord secret pour maintenir Idriss Déby au pouvoir la France soutient le dictateur. xam nga bu may wax waxu mandat fii doo leen ma comprendre. Uh-huh. damay wax fii des fois ay limitations prolongation mandat yi ça ne veut rien dire c'est les occidentaux qui nous l'ont imposé. Mm -hmm. da ngeen sonal seen bopp rek. parce que ñoom ça leur permet. un coup ñu ànd ak kii un coup selon les intérêts. keneen kii ñëwaat ñu ànd ak moom wala ñu jàppale ko pour mu ñëw ci nguur gi et cetera. loolu day tax manipulation bi gën a yomb. par rapport ak ñoom seen i parce que ñoom dëgg-dëgg ñoom intérêt seen i dëkk la ñuy défendre toujours. quelqu'un comme la preuve quelqu'un comme Idriss Déby au pouvoir Idriss Déby moom moo daaneel. Euh, moom moo daaneel moom moo taxaw moom moo tax xaw ma ndax ñëpp mës nañ gis loolu. moom moo taxaw ci ay ñaari journaliste tubaab moi je l'ai vu en France. xam nga lan la wax mu ne moom France moo ko wax pour mu am un troisième mandat mu ne fa France moo ko ne Idriss Déby changer constitution bi nga am troisième mandat. France pays des droits de l'homme France pays de la démocratie soi-disant quand ça les arrange. France boobu moom moo ne Idriss bi amal changer constitution bi nga def troisième mandat parce que yow la ñu soxla encore. Mm-hmm. c'est Idriss Déby qui l'a ISD bi boobu moom moo daaneel Hissène Habré en en 1990 euh, euh, France boobu moom moo fexe ba ba Kabila Joseph Kabila jóge fa parce que bëgguñu woon Joseph Kabila am beneen troisième mandat France boobu donc bëggul. Mm-hmm. Zaï euh, Zaïre mooy République démocratique du Congo président ba Joseph Kabila am troisième mandat bëgg ko. Mm-hmm. waaye bëgg na bëgg na kan bëgg na bëgg na bëgg na bëgg na ISD bi am beneen mandat. moom moo tax Idriss Seck am trois parce que Idriss Seck bi mi ngi si troisième mandat te dina amaat beneen quatrième amaat beneen cinquième ba France pare ci moom France boobu tamit moom moo bëgg euh, tey jii nii euh, euh, président de la Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara mu am un troisième mandat. en tout cas France boobu mooy lijjanti. pour que euh, Alpha Condé en Guinée am un troisième mandat kon bés bu Macky Sall di wax lay lay défendre bépp président africain bu mu jàppale c'est parce que foofu am na fa intérêt ali Sow ñu ngi lay remercier. bu baax a baax am na am na pétrole nag de. naa la ko wax ak gaz te France soxla na ko dégg kon bàyyi xel ci troisième mandat. d'accord ñu ngi lay remercier Aliou Sow di la jox rendez demain ci yeneen actualité dañuy daal di ñëw léegi nii ñu jàll ci rubrique musique Thank you.